Je voudrais tout d'abord saluer l'assistance, en particulier les journalistes qui ont répondu présents à notre appel d'aujourd'hui. Saluer aussi les invités, citoyens, donc venus répondre à notre conférence de presse de ce matin ici à Thiès. Moi qui suis devant vous, je m'appelle Ousmane Diaye, je suis le secrétaire général national du M23 mouvement des forces vives de la nation. Je rappelle que cette initiative est prise depuis deux semaines par des citoyens, des organisations membres du M23 et d'autres Sénégalais non affiliés au M23. Déclaration de Thiès. Le 23 juin 2011, les forces vives de la nation, dans toutes ses composantes, leur diversité, leurs contradictions, tout corps de métier, toute catégorie sociale et toute génération confondue se sont mobilisés pour faire face au projet de loi anti-républicain et antidémocratique préparant une passation de pouvoir à caractère dynastique. À la tentative d'affranchir l'Assemblée nationale de la volonté populaire aux fins d'adoption du projet relatif au ticket présidentiel et à la possibilité d'élire au Sénégal un président de la République avec 26% des suffrages. Des votants, je veux dire, une suppression déguisée du second tour. Si cette loi passait, aujourd'hui, avec 34% des voix, seulement 19% des votants, le président sortant, Maître Ablaïwad, serait réélu dès le premier tour. Et nous serons tous des sujets. C'est le moment de rappeler que les acteurs de la révolution citoyenne du 23 juin portaient un discours de paix et de justice et travaillent exclusivement au renforcement des acquis démocratiques. Pensée pieuse à nos martyrs, hommage à toutes les victimes, celles qui ont versé, sué, celles qui ont versé du sang pour arroser l'arbre de la démocratie et de la République, et à celles qui ont sacrifié leur vie ou leur liberté pour le triomphe de la démocratie et du peuple seul souverain. Aujourd'hui encore, nous devons rester debout et vigilants pour veiller sur nos acquis et refuser tout recul démocratique. Actuellement, l'ordre du jour politique tourne autour du projet de loi instituant le parrainage pour tous et à toutes les élections au lendemain de la condamnation en première instance du maire Khalifa Ababakar Sall et CE. Le contexte du moment est marqué par des discours votant guerre des communications pour créer et en tenir une confusion à des fins inavouées. Le projet de loi sur le parrainage citoyen adopté en Conseil des ministres et envoyé à l'Assemblée nationale porte-t-il des menaces sur la démocratie et la République Voilà la seule et unique question qui mérite d'être posée. Le projet de loi sur le parrainage, selon ses initiateurs, vise la rationalisation des candidatures. Ceci pour éviter le pire après les élections locales de 2014 avec plus de 2000 listes et celles législatives avec 47 listes. La rationalisation des candidatures aux élections permet aux citoyens d'avoir une visibilité sur les offres politiques. En même temps, elle fait face aux dépenses exorbitantes, souvent faites inutilement pour prendre en charge des candidatures injustifiées. Au-delà de cette rationalisation, le parrainage citoyen et populaire vient corriger une discrimination flagrante et une iniquité des citoyens quant à leur possibilité de briguer des mandats électifs. Le parrainage des candidats indépendants n'a jamais posé de problème aux hommes politiques. Pourquoi ne devrait-il pas alors accepter de se soumettre à cette obligation de parrainage pour tous et à toutes les élections Pour la mémoire des martyrs de la révolution citoyenne du 23 juin et au nom de la vérité historique, personne ne doit assimiler le projet de loi du 23 juin 2011 à celui instituant le parrainage vouloir assimiler le parrainage au projet présenté à l'Assemblée nationale le 23 juin 2011 relève de la pure manipulation et d'une tentative d'installer le chaos dans le Sénégal sans prétexte légitime. Les arguments des pourfendeurs du projet ne peuvent convaincre les citoyens épris de justice et de démocratie. Toutes les inquiétudes sur le projet de loi sur le parrainage citoyen doivent être dissipées. Pour ce faire, nous interpellons les parlementaires à prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires afin de garantir la transparence et l'efficacité du système. Nous voulons aussi saisir cette occasion pour manifester notre adhésion totale et sans jambage à la reddition des comptes. La répression de l'enrichissement illicite doit se poursuivre sans aucune rancune et de façon impersonnelle les rapports de tous les corps de contrôle, tous les rapports de tous les corps de contrôle doivent être judicieusement exploités et que tous les délinquants financiers, de quelque bord qu'ils se trouvent, sans exception aucune, doivent être traduits en justice et ou sanctionnés politiquement. Pour terminer, nous lançons un appel à tous pour plus de retenue afin de préserver la paix sociale, seul gage d'émergence. Voilà, chers journalistes, la déclaration que nous autres organisations et citoyens membres du mouvement des forces vives de la nation aimerions donc faire ici à Thiès, la cité de résistance. Cela dit, vu les calendriers chargés des uns et des autres, nous vous disons clairement que nous sommes disposés à répondre à toute éventuelle question sur le contenu de notre déclaration. Je remercie la presse et je l'étends le micro. Nous sommes disposés à recueillir et à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Aïe M23 mouvement des forces vives de la nation ak ay sénégalais yo xamné ni bokkuñ ci benn kuréel amna ñaari ay bis dañoo yëkkati suñu cadre ngir projet de loi nous avons war assemblée nationale le 19 avril ñu tudd ko projet de parrainage Nous war ko voté l'Assemblée assemblée nationale beneen bi di la justice maanaam la réédition des comptes maanaam suñu moomeel suñu alal ñun Sénégal ñi nga xam ne ni ñoo nekk corps de contrôle yi di IGE di e, OFNAC di cour des comptes ak yeneen corps yépp rapport yi nga xam déposer nañ ko rapport yoy dañu gëm ne warul nelaw ci tiroir yi dañ ko wara exploiter yépp bañ ko wara exploiter parce que bëgguñu sénégal nit ñi japp ne dafa am yoon bo xam ni daf fi nekk pour ñi am benen yoon daf bo xam manam justice nekk fi pour ñeneen manam justice pour tous ñu ne dal suñu kaddu nañ ko yëkëti pour wax ak sénégalais parce gis nañ tay ay nit dit tout di 23 juin 23 juin dañu koy fàttali du mburu nit du nekul mbiru ben organisation 23 juin mbiru askanu Sénégal le 23 juin 2011 Sénégal ci Dakar ci biir région yi nekk ci biir réew ak ci bitim Sénégalais comme benn nit ngir wax ne projet de loi bi nga maître Abdoulaye Wade ak nitam mom lañu ñu won assemblée nationale. ñun ñëpp xam nañ né projet de loi bobu non dafa ñëwoon pour daaneel démocratie dafa ñëwoon pour naxal république parce que projet de loi bobu limu mu waxoon maanaam dañuy fal président de la république ak vice président. président de la république mun na falu Sénégal même bu fekkee ne amul baat yi nga xam ne nii mooy 50 pour cent ne 25 pour cent ak benn voix boo ko amee ci ñi la di nga war a mën nekk président de la république ñu ne loolu da doon naxasal république di naxasal démocratie askan bépp ñoo jógoon nekkul woon mbiru parti politique nekkul woon mbiru ñi tey ñi jiite M23 bi ñu ñi mais mbiru askan bi la ñoo jógoon ngir xeexal seen république ngir taxawal seen république ñu bari tuur ci seen deret nit ñi sonn ci ñu bari tey la ci maanaam seen seen liberté am na ñu bari faatu ci c'est le moment tey ñu fàttali Sénégalais yi loolu ba pare nag rendre hommage maanaam sargal tatagal ñi nga xam ne démb 23 juin 2011 ñoo taxawoon ñoom ak Sénégalais yi ngir défendre seen république ngir défendre seen démocratie taxawaay boobu ñu amoon 23 juin 2011 bu ñu ko amul woon ñun ñëpp xam ne ne kon tey jamono jii ñuy wax ak ñoom ñuy wax ak président de la république sortant di maître Abdoulaye Wade ba tey mooy nekk président de la république parce que loi boobu bu avec 34 des votants. Qu'est-ce que c'est 34% président de la République 34 de représenter 19 des suffrages 19 euh, du moins du collège électoral. te lolu démocratie Madame lolu kon dañ doon am président de la République on a un petit ëpp ci réew un président de la République minoritaire. 23 juin nit ñi dañu paré wol de sen deret tayne sen sénégalais bu ci nek nga far ci parti nga parti ñu y a 23 juin du bis le xamné 23 juin n'est pas tous les jours tous les jours ne peuvent pas être un 23 juin 23 juin bis la bo xamné ku won do gor patriote ñoo amul manipulation politique tay nak ñu gis projet de loi bi ñu assemblée nationale war ko voté wala war ko saytu le 19 avril tay mom ay nit yo xamné ni maanaam ña nga xam ne ñoo yóbbuwoon projet de loi 23 juin 2011 ànd ak ñenn ñoo xam ne nii dañoo àndoon ak ñun ca biir xeex ba ak yeneen sénégalais yi ñoom tey ñu jóg taxaw bëgg a méngale ñaari projet de loi yi yéen yéen a ma gën a xam te sénégalais yi nga xam ne nii jàmm moo leen ñor sénégalais yi nga xam ne dëgg moo leen ñor ñoom ñépp xam nañ ne ñaari projet yi nag dañoo wuute lool parce que bëre dafa doon ñëw pour naxasal démocratie ak république waaye bii nag wax dëgg yàlla amul fenn foo xam ne ci projet de loi bi gis nañ fa lenn loo xam ne day néewal doole démocratie wala day néewal doole république d'ailleurs dafay yokkal dafay yokk taxawaayu démocratie parce que démocratie bokk na ci ci état de droit ñu ne Sénégal yépp ñoo yem ci yoon benn yoon moo am Sénégal waaye ne dañu seetlu ne parrainage yaa gën a Sénégal ñi nga xam ne bokkuñ ci ay parti politique buñ bëggoon a dem élection maanaam dañ leen doon wax dem leen ci sénégalais yi ñu ngemb leen. waaye boobu amul benn homme politique boo xam ne mës na jóg daan ne ñii waruñu dem ci sénégalais ñu ngemb leen ñu gis ne tey parti politique yi bari na 299 parti politique moo fi am mais en réalité 299 récépissé de parti politique moo fi am parce que li tax ñu naan parti politique du nombre boobu moo fi nekk ñu gis ne sénégalais bi tey bu jóg bëgg a nekk candidat bu ñu yokkee sax caution bi ñu gis ne candidature dafay yokk ñu ne Sénégal bëgg a nekk candidat bu la neexee nga jël 100000 francs nga dem nga loué benn récépissé am na fi ñun ñëpp xam nañ ko Sénégal la ñu dëkk ngay loué récépissé daal di mën a nekk candidat léegi beneen sénégalais bi nga xam bokkul ci kuréel ñu ne ko yow dangay dellu ci sénégalais yi ñu ne sénégalais yëpp ñoo war a yem ci yoon sénégalais yëpp ñoo war a yem ci bu qu'elle est d'ailleurs am bëgg-bëgg am ay ndombal tànk ci réew mi bu au niveau local la wala au niveau du parlement wala ñu bëgg a nekk président de la République sénégalais yépp les dañ leen war a yemale te gis na ne parrainage bi dafay pour yamale te parrainage nag ci dëkk yi am démocratie yépp de femmes te parrainage yi am ci dëkk yooyu gëm naa ne parrainage bi moo gën démocratie parce que une république lañ état de droit lañ démocratie démocratie limi wax moy peuple bi mo am souveraineté bi manam peuple bi baatam mom moko mom

am am len luñ peu, tiit te nit que est-ce que dispositif bi dina est-ce que dispositif bi dina efficace Nous ñun tay ñu pour wax assemblée nationale député yi fa dispositif bo xamné ne kenn am lu muy lu muy du dispositif bi pour écarter ay candidats kenn du a dispositif bi pour manam mëna mëna confusion comme bureau bureau de vote bureau de vote yi candidat yëpp dañ fay nekk kenn mënul sàcc dara ci bureau de vote yi parce que ñëpp dañ fay am représentant ñu xalaat ne tamit war nañu wut commission boo xam ne nii fa ñuy wàññee maanaam signature ya ko fa xoolee di ko fa saytoo képp koo xam ne da nga nekk candidature da la candidature nga am fa nga xam ne dafay leen ñëpp nga fay nekk ñëpp ñooy defandoo ñooy contendoo ba pare nag bu fekkee ne mën nañ ko wàññi mën nañu wàññi signature yi ñu wàññi ko loolu daal moo nekkoon suñu xalaat Nous avons profité profiter ci occasion pour xamal Sénégalais yi que le 23 juin nous avons mënatul am ci réew mi la le 23 juin saa bu amaatee ci réew mi waa réew mi jóg taxawal sen bopp comme nañ ko le 23 juin waaye nag du ñu nangu à 10 mois des élections avons nañ un projet de loi l'Assemblée nationale pour que candidature yi ñu saytu ko mu am visibilité ba ki nga xam voté mu a gis candidat bu ci nekk lan nga lan proposé ba pare ñu yombal ba ñu alal bi nga dañ parce que ñu bari dañuy def ay milliards pour prendre en charge ba pare ñoom gis 0,5 pour cent. ñu daal sénégalais ñu yeewu ñu suba 19 avril warul jaral kenn muy deret 19 avril jaral muy assemblée nationale wala muy défier loi bi suba 19 avril sénégalais ci jàmm déglu assemblée nationale bàyyi leen xel pour que ñom li nga xamné ni mo moo nekk suñu yité manam mbir mi mu leer mbir mi mu efficace ñom ñu taxaw ci gis nañ nak am na ñenn ñoo xamné ni ñom ñoom nekkul ne dañoo bëgg defaat 23 juin déedéet ñom dañu xool passifu 23 juin ñu bëgg a dérouler passifu 23 juin 23 juin ñu jógoon jamm lañ doon wax jàmm nañ bëggoon donte am na ay dérapage am na ay victimes ñoo ñoom nag violence boobu amoon ci le 23 juin violence boobu lañ bëgg indi ci réew mi seen projet c'est un projet de violence ce n'est pas un projet de réédition du 23 juin parce que 23 juin Sénégal est ñoo jógoon 23 juin kan moo ko jiite woon Alioune Tine moo nekkoon société civile bii def médiation tey ñoom ñëpp ñu ngi ci 23 juin ñoom tey bu ñu gëmoon projet bi baaxul du def médiation dañuy ben, def médiation parce que jàmm lay jëm ci réew mi dañuy def médiation parce que dialogue du wees dialogue dafa war a baax donte ñu bari ci ñoom tey ñi nga xam ne ñu ngi yee fitna di woo Sénégalais ci fitna ñooñu ba ñu leen woowee ne leen kaa leen di waxtaan dañoo bañ seen i différence seen i différence seen i divergence seen i contradiction waroon nañoo dem fañ koy waxtaanee ñu fësal ko fa bu ko fay bu ko defee Sénégalais xam ñoom seen xalaat waaye mënoo ne ànduma ci proposition bi te yow doo indi benn proposition lu dul génn leen ngeen taal réew mi génn leen ngeen def violence bu benn sénégalais génn di défier force de l'ordre yi force de l'ordre yi tamit ngi leen di xamal que ne réew yi ñoom dañ koo yor waaye mën nañu gérer kaaraange réew yi te duñu torturer kenn mën nañu gérer kaaraange réew yi te duñu fitnaal kenn war nañu mën a gérer kaaraange réew yi ci professionnalisme waruñu jàpp kenn koo xam ne deful lu tax ñu jàpp ko waaye dañoo gëm ne tamit maanaam kaaraange nit ñi kaaraange alalu nit ñi ak nit ñi di mën a dem dox seen yiite loolu aussi ñoom dañ ci war a taxaw fermement waaye dañ ci war a taxaw ak professionnalisme ñu ñoom tombé ci piège ñi nga xam ne nii liñ bëgg mooy bavure ñi ngi leen xamal bavure bu amee bu amee suba wala ci fan yi ñëw lépp lu fi am ci fitna responsable yi ñoo ñi nga xam ne ni ñoo woote fitna bi ba pare financé ay nit pour ñu def fitna ñu daal li ñuy woote mooy nga député yi suba de façon sereine nañu amandé tex bi ñu indi ci ay jël ay ay jël ay ay ay ay matuwaay yoo xam ne ni kenn du am sikki sàkk que ne mbir mi dina leer que ne mbir mi dina efficace. loolu daal moo nekkoon maanaam bataaxal bi nga xam ne nii ñu ngi ko tuddee bataaxalu Thiès te nga xam ne ne ay kuréel ak ay nit yu nekk m ñoom ñoo ko def ngir wax Sénégal yi que ne jàmm moom moo gën lépp parce que ci jàmm ci la mën a maanaam développé suñu réew ci la mën a waxtaan ci lañ mën a faj jafe-jafe yi nga xam ne nii mooy assey askan bi ñu ne tamit ñu dañoo waxoon ñëwoon nañ fii Thiès yéen ñii seen kanam ñu ne leen suñu alal dañ ko war kër yi tàmbali nañ ko Karim Wade jàpp nañ ko tëj nañ ko waaye liste ba ànd ña ca des ñu ne CREI dafa war a continuer def liggéeyam wóor ñu xool kenn koo xam ne nii ah dafa luubal alalu askan wi ñuy xool fu mu far wala ñuy xool lu mu tudd wala ñuy xool kuy sëriñam wala fu mu dëkk. CREI dafa war a continuer jusqu'au bout képp koo xam ne dërëm dërëmu askan bi da koo jëloon nga guuxal ko nga goxi ko parce que askan bi seen bëgg-bëgg dafa dafa bari te suñu am-am dafa néew kon suñu am-am dañ ko war a sellal ñu jàpp ne tamit am na ay sénégalais yoo xam ne faruñu fenn ñun Sénégal ñu jël suñu alal ñu jàngal leen. jox leen xam-xam ñu avons leen ñu jël suñu alal ñu jox leen ñoom ñu dem saytu ay société saytu ay nit yoo xam ne dañu yor nous réew ñu def nañ ay rapport ñu ne rapport yépp rapport yépp yu corps de contrôle rapport yépp dañoo bëgg procureur de la république mu génn mu wax askan parce que sénégalais ñenn ñi nga am impression que nous avons am pour ñenn am benn yoon pour ñeneen justice pour tous ñun loolu Nous dañoo daal rapport yooyu képp koo xam ne laa war a tëj ñu tëj la képp koo xam ne nii faute yi nga def ay faute administrative la du détournement ñu jël sanction politique parce que ñi nga xam ne ni ñoom lay tuumaal bu fekkee ne ñu leen di tuumaal c'est affaire à défaut ñu leen di tëj parce que défaut ñu faute bu jaral ñu leen di tëj président de la république bi leen joxoon décret dafa war a nangu décret bi parce que ñu ñu dénk nag ñun suñu réew bari na ci dëkk bi ñu mën a nekk ay directeur ñoo xam ne seen seen xam-xam Euh, ni ni ñu fonk nañ ko ba pare seen i loxo set na képp ku luubal daal ak fu mu mën di bokk nañ ko topp jusqu'au bout parce que alal bi ñu jëlal askan wi askan yi da koo soxla ngi def ko ci boppam loolu daal mooy bataaxal bi nga xam ne nii mooy bataaxalu Thiès ñun ñu bëggoon ko def fii leen xamal man su Diallo laa tudd di secrétaire général national pour M23